ñu ngi am te dalal ci matinalu tay bi Mamadou Lamine Diante mu ngi bokk ci Yewwi Askan Wi nekk itam njiitu mouvement pour la citoyenneté partagée en Nawlé ñu ngi lay dalal jàmm ci matinal bi di la nuyu. Euh, maa ngi lay fay euh, soxna Fatou di euh, nuyu sa auditrice ak sa auditeurs di la jaajëfal ci invitation bi. alors ñu tàmbali euh, waxtaan bi ak euh, li xew yaraax euh, barki ba di cong gi ñu def ci ay bus wala benn bus bu yeboon ay nit ak cocktail molotov loolu tamit ñu ne xewaat na Thiès ministre bi wax ne par exemple fii ci yaraax ay nit gaañu nañu si wante mu mel ni yéen ci opposition bi dangeen ngeen si am xel ñaar yow lan mooy sa xalaat dëgg-dëgg si mbir moomu. waaw man bi mbir mi amee ma dégg ma dégg information bi yàlla xam na ne dama yaakaaroon ne lu am la. mais après euh, avec le recul bi ma toogee euh, seetaan mbir yi xool euh, image yeeg tout ça ak manipulation boo xam ne def nañ ko ci yàlla xam na ne sama xel tey na li tax sama xel tey moom mooy que ni déjà ki ñu présenté ne moom moo doon dawal moo doon dawal car bi nit ñi nee nañu du du chauffeur waaye alkaati la donc loolu benn la ñaareel bi mooy xanaa kay Sénégal tollu tolluñu ci jamono ji nga xam ne nit ñi dinañu manqué solidarité manqué solidarité boo xam ne ay nit dinañ ñëw song song oto boo xam ne moo ngi yëpp ay nit euh, muy ñu taal oto bi oto bi di lakk nit ñi nekk ci biir te euh, entourage bi kenn génnul parce que foofu du àll foofu ay habitation ñoo fa nekk ay nit yaa ngi fa woon donc kenn newul secourir nit ñi pour génnee leen euh, ensuite euh, bu ñuy wax ni ñooñu dañoo song kii bi il faut dire que ñu xam la mooy seen motivation bu dee ay ay la xëy xaalis lañ doon wut mais kenn déggul ne receveur bi am na lu ko dal wala jël nañ xaalis bi et tout ça ñetteel bi mooy gisuñu fenn foo xam ne. Euh, nguur gi dem na fa pour wane ne ñii ci biir bus bi lañ nekkoon ñu làkk donc ñoo ngi nii euh, euh, hôpital sangam wala ñu ñu wax ne sax que ñu wane même bu dee dañ leen di muur ñoo xam ne dañoo dañ cay ñàkk seen bàkkan te aussi ci waa yi doon wax noonu dégg nañu muy wax ne waa ji dafa yoroon flamme e mais ministre bi moo ko moom moo ko ne cocktail molotov te xam nañ ne cocktail molotov concept boobu ñoom ñoo ko fi indi di euh, bu ko bu ko taxal kenn ci euh, euh, tuuma yoo xam ne yëkkati nañ ko pour teg ko ci ndoddu Ousmane Sonko ñu ngi wax ne dafa lëkkaloo ak benn entreprise terroriste donc comme xam nañ ne loolu amul ñun dañoo jàpp ne simplement que dañuy wut maintenant ay événements yoo xam ne dinañ leen permettre ñu mën a def ko ci layu parquet bi pour ni effectivement Ousmane Sonko moom moo ko def. de sorte que suñu xel daal tey na ci hmm. euh, à moins que ñu indi ñu ay euh, éléments yoo xam ne ay éléments probants la ñu xam ne en réalité euh, du montage wala du manipulation wala du yenn yi daal donc on attend de voir pour pour croire. mais est-ce que bu doon dañu bëgg def complot bu mel noonu du balaa ñuy tëj Ousmane Sonko lañ koy def bu ko defee ñu mun a dajale loolu yëpp procureur teg ko ci taabal ji. oui mais xam nga xam nga fii wax nañ ne Ousmane Sonko dafa doon woote pour que euh, mu am insurrection Sénégal te ñëpp xam nañ ne ñëpp seede nañ ne son Sonko musul yi ki di kaddu yu mel noonu Ousmane Sonko kat dafay ne moom dafay euh, dafay résister donc appel à la résistance la bu woote woon sax mobilisation euh, wala manifestation mais euh, acteur politique boo wootee manifestation manifestation pacifique moo manifestation moom mooy da ngay euh, woo askan boo xam ne moo ànd ak yow pour nga wone sa doole pour que ki ko sexal euh, bu dee am na loo xam ne nar na ko pour teg ko sa kaw wala pour pour gàllankoor la mu xam ne dafa war a téye loxoom parce que ñii ñëpp ñu ngi ànd ak yow moom mooy démonstration de force dissuasive loolu la Ousmane Sonko mës a def mais tey jii ñoo ngi wax dafa lëkkaloo ak benn entreprise terroriste donc euh, élément yooyu euh, nee nañu am na ñu euh, ñuy tuddee force commando force spéciale force cocktail molotov mais enquêtes yi am na mais ci enquêtes yooyu yëpp amul benn enquête bu wane ne ñoom ñi nga xam jàpp nañ leen te nee nañu ñoom loolu lañ loolu lañ tudd dañoo am benn lien ak Ousmane Sonko wala benn lien avec Pastef mais nag loolu yëpp bu amee léegi ñuy xaar jugement bi. balaa jugement bi di ñëw parce que déjà euh, boo ñuy dem jugement il faudrait que ñu indi ay éléments léegi nag bu ñu indee élément yi mën nañu euh, jël lii nii euh, wax ko ni euh, lii da cee bokk parce que gis nañ ne au lieu que ñu def benn enquête impartiale indépendante boo xam ne dina permettre sénégalais yi ñu xam fan la dëgg bi féete ñoo ngi gaawantu di wax ne ku ci am seede sax ku koo xam ne nekk nga seede na nga ñëw nga wax ak ñun xam nañu Sénégal nu muy doxee nit mun na ñëw jaay ngoram wala ñu jox ko xaalis mu jël benn citoyen boo xam ne moo ngi ja ku jàmbure la. mu ne bokk ci la bokk bu ko defee ñu eh, ñu taxal Ousmane Sonko wala taxal ku mu àndal. Hmm. justement jàpp ko Sonko ak euh, tas gi ñu tas parti Pastef yow euh, loo ci jàngat. jaay doole jaay doole kese la parce que en réalité euh, tey jii parti politique association privée la comme ni ko charte ndey réew mi digee parce que liberté d'association. constitution bi moom moo ko moom moo ko consacré donc euh, parti politique boo xam ne Pastef la tudd xam nañ ko mosu fee def benn activité boo xam ne du activité politique donc dafa mos a yëngu ci activité politique chaque fois bu élection amee mu participer ci élection bi moo xam moom danga mooy dem d'ailleurs je crois que mosul dem moom donc mais dafay ànd ak ñeneen ñi pour gagner euh, ay suffrage yu sénégalais yi euh, buy def ay manifestation pacifique moo xam meeting la moo xam rassemblement la moo xam leneen la donc bu parti politique tey jii parce que dafa la neex rek nga bëgg a wàññi doole euh, njiitam nga bëgg a euh, diaboliser njiitam bëgg bëgg a wax ne euh, ñooñu chaque fois bu ñu defee appel dafay am événement insurrectionnel que ñooñu da nga leen war a tas ñu yaakaar ne loolu c'est extrêmement grave bu dee tas waroon na am am na benn groupe benn benn mouvement boo xam ne jóg na fi ñu créer ko mu ne moom li ko yëkkati moom mooy une rébellion armée mais kenn mësu ko tas. donc nga bàyyi fi loolu nga bëgg tas parti politique nga xam ne loolu jaay doole la mais nag lu euh, parti politique euh, wala acteur politique yi ñoom la ñuy interpellé mais bépp sénégalais boo xam ne da nga nekk ci benn organisation benn kuréel da nga war a xam ne bu subaa sax bu leen neexee ñu tas daayira bu subaa bu leen neexee ñu tas euh, syndicat bu subaa bu leen neexee ñu attaqué wu à un groupe de presse donc dañu war a xam ne tey jii du xeexu Pastef du xeexu Ousmane ko xeexu bépp sénégalais boo xam ne euh, sa yitte moom mooy ñu respecter constitution ñu respecter ak yelleefu doomi aadama yi mais également ñu respecte la liberté d'association. Hmm, est-ce que Yewwi Askan Wi am na tey euh, kattan beeg mën-mën bi ci wàllu politique pour xeex xeex bi jàkkaarloog nguur gi. oui mais xam nga Yewwi Askan Wi déjà woon na sénégalais yi boo gisee sénégalais tey jii ñu ëpp ci sénégalais yi dañoo ànd ak Askan Wi parce que. askan wi dafa won ne moom euh, mbëbëtam yëpp moom mooy nan lay fexe ba génne sénégalais yi ci guute boo xam ne moom la ci moom la ko régime yi dugal euh, Yewwi Askan Wi dafa mus a euh, prôner des activités strictement pacifiques pour que véritablement ñu mën a suqali démocratie ñu suqali koom-koomu réew mi donc là également lépp loo xam ne yoon may nañu ko. te mu méngoo ak sartu réew bi évidemment Yewwi Askan Wi dafay jël moyen yooyu pour que euh, ñu mën a xeex xeex bi euh, ñu gagné xeex bi pour que démocratie continue sax ci Sénégal état droit boo xam ne ñoo ngi koy salfaañe ñu mën koo restaurer donc Yewwi Askan Wi mu ngi lëkkaloo ak yenn organisation yi fii ak ay fan yu néew di ngeen euh, di ngeen gis action yoo xam ne nañ ko mëne te bu boobaa aussi euh, ñoo xam ne ñoom ñoo ñoom lañ ko sexal nañ xam ne ñoom fu ñu doon xaar duñ fa fekk mais euh, bu dee da ngay jaay muus di nga gis koo xam ne moo la gën a muus donc ci tànk yooyu la Yewwi Askan Wi nekk mm. ñoo ngi organiser les les forces ñoo ngi rencontrer ñoo xam ne war lañ leen rencontrer moo xam fii la moo xam bitim réew la pour que véritablement lii Macky Sall ak nguuram nekkee fii mu dakk pour que yi mën a am jàmm. mën Euh, oui absolument absolument parce que déjà essayé nañ ko essayé nañ ko affaire euh, te réussir nañ ko parce que euh, plainte boo xam ne euh, avocat français bi nga xam ne moom mooy layal Ousmane Sonko te mu tuddee Juan Branco def na ko xam nañu gis nañu panique boo xam ne au plus haut sommet de de l'État ñoo ngi koy dund mais nag parce que parce que ñoom ñoo ko def. léegi nag pour bëgg cee génn moo tax ñu jël euh, tuuma yooyu euh, bëgg ko retourné ne son Sonko moo ko def du kenn ku dul Ousmane Sonko moo ko def mais nag Ousmane Sonko dañu dañuy rappeler simplement que euh, juróomi fukk nit wala lu ëpp juróom fukki nit yoo xam ne dee nañu ci mbir yi ñoom ñëpp ay militants Ousmane Sonko lañu xanaa kay nit ki doo doo créer incident pour que say say sa njaboot gi dem dem di ci ñàkk bakkanam donc là dañuy internationaliser effectivement xeex bi dañuy. lëkkaloo ak les défenseurs des droits humains dañuy lëkkaloo ak yeneen forces démocratiques yi mais également dinañu dem ci bitim réew euh, fépp foo xam ne fa la mbaxane doone benn euh, te euh, réew mën fa clamer say njit évidemment dañ ko dañ ko continuer def mais avec toujours des sources documentées lépp loo xam ne dinañ ko présenter foofu aussi nañ indi firnde yi pour que ñu xam ne ñun caaxaanuñu. Hmm, ni nguur def ba teg loxo Ousmane Sonko. seeyal parti mën nañu caa jàpp ne li président Macky Sall waxoon ca njalbeen ne euh, je vais réduire l'expression euh, l'opposition à sa plus simple expression am na ci ndam. waaw mais xam nga loolu bi ñu ko déggee ñenn ñi dañu yaakaar ne xëy na daf daf ko rëccale woon rek mais ñun dañoo jàpp ne du intention du mbëbëtam mais en moom mooy bëgg-bëggam bëgg-bëggam moom mooy que ni tey jii moom dong mu nekk fi di buur di bumi te kenn mënul parce que mënul moom mënul suppor contradiction parce que mënu supporter contradiction mu bëgg a euh, nasaxal constitution te constitution moom moo ne euh, régime démocratique lañ nekk dina am koo xam ne moo yore nguur gi moom la ñuy jox doole bi mais également duñ ko bàyyi moom donc muy buur di bummi il faudrait que euh, ci ci wetam mu am keneen koo xam ne bu d'accordul ak moom nu muy doxalee mu donc mu mu def opposition donc le droit à l'opposition est consacré par la constitution mais moom nee na nag loolu du am moom dafay euh, euh, jël opposition bi euh, def ko comme comme citron pressé ko ba dara dutul des ci opposition bi donc ci tànk yooyu la mës nekk booba léegi xam nañ ne ci ñett wala ñeenti at yi ki jaakaarlook moom tenir ko tête du keneen ku dul Ousmane Sonko Pastef ak Yewwi Askan Wi ba tax na tey jii taxawaay bu mu am au-delà de euh, réduire l'opposition à sa plus simple expression moom mooy fayantoo fayantoo bi moom mooy euh, am na ñoo xam ne jël nañ fi ay firnde yu leer def ko plainte yóbbu ko au niveau de la cour euh, de pénale internationale donc ñooñu foog ma topp leen ba mu sës beneen bi mooy woote na fi semblant de jalo pour def ay arrangement yu ndaw diggante moom ak yenn xaritam yi euh, ñoo xam ne gis nañ ne waxtaan boobu mënul jural Sénégal dara lu baax ñoom taxaw ne ñoom du ñu bokk ci euh, waxtaan boobu tey jii il faudrait que mu mu mu mu mu topp leen euh, ba mu sës donc bu commencé ci Ousmane Sonko teg ko également. Pastef ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko ci biir Yewwi Askan Wi te mosuñoo nangu bokk ci euh, euh, euh, waxtaan boobu waxtaanu caaxaan boobu donc ñoo ngi xaar suñu suñu tuur. Ah, donc bu subaa kon yaakaar seen kaw la jëm. suñu kaw la jëm. te au-delà de de bu jàllee bu jàllee euh, Yewwi Askan Wi euh, donc euh, sénégalais bu yeboo ñu xam ne ku nekk boo ku ci am sa mer gàddu hmm. jël ko nga dugg sa néeg nga tëdd parce que à partir de ce moment ku mu fekk ci yoonam dina la dina la fi jëlee hmm. parce que newoon na fi du fi def troisième mandat parce que yoon mayu ko ko mais dafa bëgg a créer benn situation boo xam ne bu subaa moom dina toog fi ba faw ba keroog boo xam ne yàlla dina ko fi jëlee hmm. mais en tous les cas ñun ñu jàpp ne comme ni ko tubaab di waxee à malin malin et demi donc euh, euh, xam nañu fu mu jëm ak ñun mais ñun également duñ ko ko yombal incha allah. ah kon laa loolu Madou moo tax euh, defu leen benn manifestation pour bañ kawoo bi ngeen njort ne moom lay wut pour daq élection yi mu am mais xam nga xam nga boo jëlee ay ay contrées yu mel ni ay Casamance moo xam Ziguinchor la moo xam Kolda la moo xam Sédhiou la bu manifestation amee rek ñu ne am na ñu dee. Hmm. donc dafay mel ni foofu. Euh, alkaat yi yoruñu sax ay grenade lacrymogène mais ay balu fetal la ñu yor di ko dóor ci kaw nit ñi parce que en réalité euh, ñëpp ñoo xam ne bu ñàkk lañ seen bakkan euh, ci anam boobu la ñuy seen bakkan donc Sénégal aussi ñoo ngi bëgg a tàmmal nit ñi saa boo wootee une manifestation pacifique ñu ne la euh, bu ngoonee da ngay compter ñaata nit ñoo ci ñàkk seen i bakkan mm. ñu yaakaar ne donc loolu mënul mën a warul mën a continuer parce que ñooñu di ñàkk seen bakkan ñooñu ñoo war a woteel woteel bu élection amee mm. donc de sorte que il faudrait que ñu seetaat un peu taxawaay bi xam moom lan la bëgg euh, kaw la bëgg a installé Sénégal ñun duñ ko ko may parce que en réalité ñun dañoo jàpp ne le vingt cinq février deux mille vingt quatre incha allah élection présidentielle dina am Sénégal te bu boobaa xam nañu Sénégal sénégalais tey kan moo nekk ci seen dënn Ousmane Sonko moo nekk ci seen dënn bu ko defee ñu tànn ko mu mu jiite Sénégal. justement lu ngeen dégg ci moom comme ay xibaar commencé woon na xiifal depuis ñu yóbbu ko prison Sébikotane lan ngeen dégg tey ci Ousmane Sonko. oui mais oui mais Ousmane mu ngi continuer grève de la faim bi. ñun bu bu bu desoon ci ñun rek xëy na dina doon arrêté euh, grève de la fin bi mais moom am na leneen loo xam ne moo ko ci yëkkati parce que bu ñu fàttee ne lu ëpp euh, juróom-benn téeméeri euh, prisonnier ñoo ngi ci kaso yi ñu téye leen foofu. n'est-ce pas euh, ñu ci bëri Ousmane Sonko moo yore woon seen añ seen reer ak seen ndékki bon tey jii bu nekkee euh, bu bu dee ñoom jàpp nañ ko moom également c'est-à-dire que ñooñu du ñu am fu ñuy fu ñuy fu ñuy lekkee de sorte que euh, loolu moo gën a tax mu moom également en solidarité mu def grève de la faim mais xam nañ ne wérgu yaramam déjà dafa fragile tuuma buñ koy tuumaal naan que dafa dem sud boote di seq ak benn xale bu jigéen te ñu xam ne loolu yëpp ay kacc la xam nañ ne loolu c'est parce que dafa am feebar boo xam ne moo nekk ci moom nee na depuis bu mu nekkee xale nest léegi nag boo ci tegee euh, en plus que euh, asthmatique la donc euh, war nañ mën a am tiitaange ci wér yaramam ak euh, sax ci ci bakkanam mais nag euh, xam nañu engagement bi xam nañu son militantisme bu jëlee benn décision pour nga génnee ko ci dafay xaw a métti te bëri ñu bëri na également ay détenus yoo xam ne dañu ànd ak moom ci xiifal bi te ñu ci bëri également seen wér yaram demeewul noonu parce que déjà ñu bëri yóbbu nañ leen ci hôpitaux yi pour pour pour seet seen wér-gu-yaram nu mu demee donc de sorte que tey jii ñun yaa ngi jàpp ne Euh, au-delà donc des des des acteurs politiques euh, on interpelle les défenseurs des droits de maanaam képp koo xam ne da fi nekk pour sàmm ak ak yelleefu doomi aadama donc ñu interpellé ak yeneen sénégalais yoo xam ne euh, jàmm. Sénégal yitteel na leen pour ñu xam ne te jii situation bi si extrêmement préoccupante et que lépp loo xam ne tukkee na fa rek ñu xam ne responsabilité Macky Sall la ak nguuram. est-ce que dëgg-dëgg yaramu Ousmane Sonko dafa tàmbalee sutante parce que ay xibaar ñu ngi wax loolu ndax mun nga ko waaw mais loolu euh, mën nañ ko mën nañ ko affirmer parce que comme ni ma la waxee Ousmane Sonko dëgër na c'est vrai mais sur le plan de la santé euh, wérgu yaram demeewul noonu parce que un asthmatique déjà xam nañu euh, bu bu ci boolee également xiifal donc li ko mën a lu ko mën a jural métti na. donc ñun euh, on n'a jamais voulu que mu engagé euh, l'épreuve euh, ultime donc de grève de la faim mais nag moom moo xam lu tax mu koy def te ñu yaakaar ne également kenn waru ko seetaan parce que bu ñu ko seetaanee ba musiba am bu boobaa dana gën a métti seen ci Sénégal. jërëjëf Mamadou Lamine Diante ñu ngi lay gërëm ci disponibilité bi fàttali ni yaa ngi bokk ci Yewwi Askan Wi ak itam mouvement pour la citoyenneté partagée ànd naw merci beaucoup Adja.